asalaamaaleykum mbokki Sénégal man Mahammed Boun Abdallah Dionne seen frère seen xarit maa ñëw tey di waxtaan ak yéen euh, ma nekk ancien premier ministre de la République du Sénégal nekk candidat ci élection présidentielle bi ñuy dëgmal. di nuyu kilifa diine yi ak aada yi di nuyu jigéen ñi di nuyu jeunesse bi di nuyu force vive yëpp yi nekk ci réew mi ndax ñooy Sénégal euh, bu loolu passé kenn fàttewul ne yaa ñaari fan rek adduna yëpp. ñoo ngi célébrer li ñuy wax 8 mars nekk bés boo xam ne moom la ñu di àdduna bi euh, di sargal yelleefu jigéen ñi fii mu nekk nii di tey suñu mbokku jàngu bi chrétien yi yëpp ñoo ngi ci woor di carême chrétien dans ñaari fan incha allah wala ñett ñun ñëpp dinañu commencé koor incha allah lu mu yéex yéex yéex di ramadan loolu yëpp nag du hasard suñu boroom mooy wax ak ñun loolu nag nañ koy jàng ci ay leçon suñu baay ba bu baax ba yàlla na yàlla yokk leeram biir àjjana Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al moo daan wax ne dañoo war a sangat réew mi xëy na jamono sangat réew mi moo jot sangat réew mi nag mooy tàppe xol yi ñu ànd juboowaat réconciliation incha allah le 24 mars man de boo leen ma joxee lenge yi Inch'Allah, je serai le président de la réconciliation nationale et de l'unité nationale. bu ñu paree loolu apaisement paix civile loolu je pense que lu important la it jàmm am ci réew mi ak unité bi nationale. bu ñu paasee loolu fan yii di ñëw incha allah dinaa dellu si ci sama programme sama programme nag dañuy tënk soo ko doon tënk tey dañuy départ rek ci constat bi constat bi mooy. sénégalais yi dañoo perdre seen loxo ci seen économie suñu bàyyi dañ daan wax moom sa réew man ma ne moom sa koom suñu koom il faut ñu moomaat ko loolu mooy souveraineté économique pour ma def ko nag réforme de l'État lay commencé fan yi ku xool li fi xew yëpp xam ne jot nañu génnewaat réforme bi nga xam ne mooy le CNRI waxoon conseil national de réforme des institutions sama engagement mooy incha allah ñu appliqué ko buñ ko appliqué jàmm lay andi ci réew mi ci équilibre institution yi moo tax it ma ne man benn mandaa unique lay def juróomi at ndax defe naa ne boo nekkee juróomi at chef de gouvernement juróomi at président jot na nga bàyyi keneen jël réew mi di dox sama réforme yi réforme territoriale mi ngi ci réforme pour diaspora mi ngi ci réforme pour production industrialisation mi ngi ci incha allah je serai le candidat de l'expérience dinaa ci dellu si ponk par ponk waxtaan ci ak yéen maa ngi gërëm ñëpp incha allah ba fan yi jërëjëf